jaratul ngay jël ambulance dem ba hôpital Dantec wala principal fii ngay taxaw xarala yi matériel baa ngi fi docteur yaa ngi fi da ngay jël clando wala nga dox naa nga dem ci hôpital bi ñu faj la te doo fay lu bari kooku mooy ñetteelu point bi quatrième point bi mooy l'unité de néonatologie kooku lu tuburanke la woon monsieur le ministre grâce à vos belles essences et grâce à l'imagination de monsieur le maire Guédiawaye est doté d'une unité de néonatologie xam nga la moo gën a métti si mooy clinicien bi yéen doon karang e ba xale bi judd waaye amee complication te mënoo fexe ba xale bi génn ci complication yi mu wër na la kii dund na judd na waaye dans trois heures de temps quatre heures de temps da nga koy ñàkk kooku daan war ambil ay hôpital yëpp doo am place waaye grâce à kii toog fii monsieur le ministre de la santé dafa

grâce à monsieur le ministre de la santé de l'action sociale hôpital am na roi de Baudouin installé fi na ci appareil de mammographie buy jar deux millions de francs

fii ci Géejawaay ak fii ci appel bi ma nekk tey bis ni tey man ak sama mbooloo bi àndal fii yëpp wax ne bilan bi jeexagul bilan bi 2019 lañ koy def parce que kat dama ne woon kii kat 2014 ànduñu woon waaye 2019 ak bilan bi ñu def yëpp demee ni waat population yi voté leen ma bàyyi mais population est-ce que dañu ànd ak man waaye dañoo àndu liggéey faral le président Macky Sall au premier tour le 24 février 2019 Sall au premier en 2019 dès midi parce que man damaa gëm sama damaa xam ne ñii ñu dogu lañ di ma bëccëgal di ma guddeel di ma yendal mënu ma fay seen fay muy jigéenu quartier Dora Aw di jigéenu Golf Nord gendarme Guédiawaye ñoom ñëpp dañoo takku fas yéene élire le président Macky Sall au le 24 février 2019 waaye nag gars waaye nag waaye nag gars yi waaye réélection boobu nag se fait sur le terrain man docteur Sall xamewu leen ma politicien diplomate wala politicien

de passer le réveil au soir d'un certain jour de décembre en 2019. Falaat Diop di mu nekk ak suñu nous ñu continuer liggéey bi defaat d'autres réalisations di wax monsieur le maire monsieur le ministre maa ngi gërëm aussi la directrice de l'hôpital bu am besoin madame Bamata Diampata madame Ba muy def liggéey bu am solo muy ndaw jigéen ju mën góor mu ngi ni ta xam newul kenn ci Guédiawaye